asalaamaaleykum suñu mbokk internet Kéwoulo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax alors nag ñoo ngi fi nga xam ne moo di Cap des Biches fi nga xam ne marcheurs du Sénégal yëpp fa la ñu daal di tasante pour ñu waajal li nga xam ne moo di pèlerinage marial de poupengine di leen fàttali rek ñu ñoo ngi si suñu 136e édition ñun ñi nga xam ne waa Kéwoulo TV ñu daal di ànd ak ñi nga xam ne di marcheur yi wan leen lan mooy lan la ñuy doxee gën ci ngay yëpp ko gisee fii nag macha allah na nit lool ba xam kan nga exactement xam kan nga a tellement ambiance nañ ko ah ça va li nga xam pèlerinage bi. ah rek préparatif yi na mais yi suñu na parce que suba dañuy dem ku ci maman Maria. la première fois tu marches wala. non bi quatrième année marche. Mhm. quatrième année. donc ça am nga ci expérience. non am expérience donte mu ngi métti ba léegi am naa expérience su ma xalaatee ku war a tax rek may def marche bi damay gën a am courage. na ngeen def ngeen si jàmm lan ngeen di préparé lii nga xam ne moo di marche pèlerinage Popenguine bi. ah ñoo ngi koy waajal comme gars yi ni ñu koy waajalee rek moo loolu ñun waa Saint Augustin ñun waa Saint Augustin ñoo ngi yegg si nañ waaw di ko pare comme gars yëpp nuñ koy paree rek yoon mi moom waaw dóor muy la. ànd ak maman Marie waaw mu gunge ñu si yoon bi ñu ñaan prière ambiance ba yegg waaw mu accueillir ñu si jaamu ñu feetu après waaw lu stop mom. non man yàgg na ñëw bi mooy sama sixième ane gay. waaw bi mooy sama sixième ane may ñëw Popenguine mais dañ koy marché si jàmm ak salaam rek comme mari et paix moom dañ koy dund avec joie rek. dem ak moom moom contentement def lépp foo waaw ñaan mari lépp mu jox ko loxo mu ñaanal ñu yow yóbbu suñu ñaan ci ko si Yeesu Kirista mu sell ak wa seen tawar a xam waaw dara dara yow. alors sama genre yi rek ñoo ngi soog a ñëw waaw ak lépp ñu jàppalante rek ñun ñi ñuy soog a marche fekk ñu si yoon bi nañu jàppale rek waaw bañ mbalak bañ ñoo def dara. ñu dox yegg si jàmm maman Marie la ñu woote waaw. alors noo leen di waajee li nga xam ne moo di marche Popenguine bi. ah ñu ngi koy waajee neex rek ak bànneex rek waaw ak calme nag yoonu jàmm rek dem seeti Mariama. yéen nag. ah ñu ngi koy ñu koy ñu ngi koy jaajëfal moom. ndax marché bi moom daa nar neex moom. waaw marché moom narul yombo billaay waaw marché moom narul yomb. état bi chrétien yi ay nag de ñëpp nañ si bàyyi xel billaay. ñu ngi koy waajal mu jarul baaxul. narul yomb narul yomb. lu mu jarul baaxul.

Mamma Maria salve regina Mamma Maria salve regina E Mamma Maria salve regina Mamma Maria salve regina E alale mamma alleluia e mamma e Alele mamma alleluia e mamma e E alele mamma e Alele mamma e e nday ju sell santa nañu la nday ju sell santa nañu la e eh, mamma maria salve regina mamma maria salve regina e eh, alale mamma alleluia e eh, mamma e alale mamma alleluia e mamma e kontaan naa si jël waaw jam ñaa lañ dëkk Dienore Edouard César Ben Fall d'accord naa ci yéen jërëjëf gan ci ngay yëpp mburu la bari boo bari nguur ñu ngi siiwal sa ndam yàlla buur bi booy ala tan na fan la liggéey ndeyu Krista bi chercheurs yi di dem fele ci popangine ci 136e sixième édition bi ñoo ngi fii nag gis ngeen ci popangine comme ni ngeen ko gisé nak instant yi mën naa ne les premières ñoo xamni ñoo ñëk a dem nañ à partir de 6 h 30 ñi di wa Rufisque jall nañ wa Bambilor jall nañ wa Mbaaw ñom ñooy ñëw jall ni donc ñun wa Kéwoulo dañ leen fi téwal won leen nak ñi di marcheurs yi nan lañuy doxé ni tambalé ko fi nga xamni moy Cap des Biches dem village des marcheurs ak fele ci église ba. ça va Mang de nuyu di bon Lou, ad bu jot yàlla dafa faral avec les jeunes paroissiens de Bakita di l'accompagner qui marche bi donc je pense que moi 11e fois ma ande, c'est vrai que j'ai manqué deux rendez-vous mais moi il période de Covid bi. Eh, Bye. you <laughs> Euh, l'Église catholique est membre à part entière, n'est-ce pas, du peuple sénégalais. Aujourd'hui, si euh, les élections sont bien passées, voilà, je, pense que c'est tout le Sénégal qui, qui, qui gagne. L'Église catholique jouera toujours le rôle qu'on lui a toujours attribué, le rôle qu'il s'est attribué lui-même et le rôle qu'on lui connaît. Euh, moi, le, message que j'ai à, lancer, comme je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres médias, c'est de rappeler le désir de marcher ensemble. C'est important. Ne pas avancer en rang dispersé. Il faut qu'on aille ensemble dans, dans l'effort de synodalité, n'est-ce pas un terme qui n'est pas nouveau en Église et que, qui est un terme qui est cher au pape François. Voilà, marcher ensemble, faire sinon pour notre Sénégal, ce avec la Vierge Marie, pour que la justice se fasse, mais aussi pour que la paix règne au Sénégal. Et je le dis tout le temps, le Sénégal n'appartient pas à d'autres personnes. Le Sénégal appartient aux Sénégalais, bon temps que nous sommes. Maintenant, par rapport au reste euh, du pèlerinage, on sait que c'est c'est Monseigneur André Gueye qui va diriger la messe solennelle de demain. Maintenant, quelles, euh, sont vos attentes par rapport au reste du pèlerinage sur le spirituel que les pèlerins doivent Alors, comme, comme je l'ai dit à l'occasion de deux messes d'envoi, euh, d'abord à Sainte-Thérèse, ma paroisse, puis à Rufus, où j'ai été invité, euh, le, message il est le suivant. On va vers la Vierge Marie pour lui présenter nos causes, nos intentions, nos, nos, soucis, nos attentes. C'est l'occasion de ne pas perdre du temps et d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'assister à la messe. Un pèlerinage sans la messe n'est pas un pèlerinage faire ces autres exercices spirituels tels que le chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement, la confession, faire synode avec les autres, prier avec un groupe, avec des amis. Je pense que c'est l'occasion d'expérimenter cela. On l'a fait en paroisse. Et puis je rappelle aussi que le pèlerinage, il se vit à l'occasion de la Pentecôte. Hein. L'Esprit Saint doit nous mouvoir. Il doit être l'intercesseur qui présente au Seigneur toutes nos supplications. Ne perdons pas du temps. Le volet spirituel, il est essentiel. Arrêtons-nous à ce volet, pas dans d'autres volets. C'est important. soit faite la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi Oh!